asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara Muhammad yéen a dellu si ak yéen ci yóbbalu bés bi booy sàkku xam-xam rawatina xam-xamu diine na la ndax nee na boo xasee xam li ngay wut rek ne darajaam toll loo ci def rek danga koy xeeb boo xasee xam li ngay wut dëgg-dëgg ni darajama loo ci def ci kàttan rek xeeb ko boo xasee xam li ngay wut rekk na dara jaam loo ci def rekk dal di koy xeeb boo xasee xam li ngay wut dëgg-dëgg daraja ma loo ci def ci kàttan rekk xeeb ko ñoo ngi ko nag ci téere bu naan la Lamyatul Burxaani Sëriñ Tuuba wax ko fa jërëjëfe Sëriñ Tuuba maam Cheikh Ibrahima